asalaamaaleykum mbokki xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal rek lu bare bare di wax saa su ne rek mbégte ak bànneex la ñuy am ànd ak yéen mardi bu jot xam ngeen nag li ko waraloon rek ñu ngi nekkoon ca màggal Touba li nga xamante ne rek munul ñàkk et donc rek ñu leen di jaajëfal di leen nuyu nuyoo bi nga xamante ne moo gën a ànd ak yar gën a ànd ak tey mardi bu jot nag ni ñu baaxoo di ko defee dañuy ànd ñun ñetti doomu pendanaar yi daal di leen bégal nag ñu tàmbaliwaat ko rek tey waaye tey nag dafay nekk journée boo xam ne spéciale euh, journée spéciale boo xam ne nii tey euh, dafa am lu ko waral euh, ndaxte nag àdduna nii la demal maa ngi ñëw la waaye nag bu fekkee nit koo xam ne da doon même bu demee tamit kàddoom ak image yi nga xamante ne jot na ko fi liggéey saa su ne rek dañuy am lu bari luñ ciy jàng moom nag dafa bokk kenn ci moom kon saa yu fi toogee tey ak uppukaayam bu yànj mi xel mi dafay dal di dem ci moom loolu ñu koy fàttaliku muy suñu yaay di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xare ko ajjana yàlla oyofal suuf ci kawam waaye eh, li mu doon def ci eh, doomu aadama yi mbégte bi dimbali doomu aadama yi yal na ko wàllu foofu nga xamante ne fi mu nekk kon nag damay daal di nuyoo rek tey eh, Mado Mado tey moom tey tey suñu journée la mais yow yow sa wàll moo ci ëpp ah déedéet Sel maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs yi di nuyu dërëm yaay sama doomu ndey comme ni nga ko waxee Bessél gëj nañ gisante namante nañ loolu ndax depuis màggal bi nga xamante ne ci nañu xamante ne ñaan nañ ko fa sunu borom mu nangul ñu ko képp koo xamante ne nga sa aajo dem sunu borom defal la ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa di nuyu képp koo xamante tey yaa ngi tëdd ci lalu hôpital ndax comme nuñ fi toogee eh, amaana dañu ànd ak ak wér macha allah ñu kàttan ñu toog waaye ñi nga xamante ne dañu tëdd comme ni ko dërëm di waxee saa su ne ñoom itam yàlla yàlla fëgg seen bopp yëkkati leen ñi caabi féetee ginnaaw tamit dama leen di ñaanal pax pareil waaye rawatina ñi nga xamante ne moom moo di suñu woy daawlo yi képp koo xamante yaa ngi biir suuf yàlla na sa yàlla jéggal sa ay bàkkaar suuf oyof ci sa kaw te xare la ci àjjana yi gën a kawe rawatina na comme ni nga ko waxee rek sunu waajur du ñu bokk da ngeen xër rek baax waaye xaman ngeen ne ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk ndax moom dafa tëddee woon njaaxaanaay tubaar fakàl la mhm. ñëpp la njaboote woon jooy naa ci nag ba sonn ndax fiiroon mhm. waaye nag gëm naa ne ñëpp la njaboote woon mhm. ndax ñun ñoo siiw waaye ñi ci biti ñoo ëpp te xam naa ni fonk nañ ko moom itam ñu di ko ñaanal ah. euh, dërëm yaay namoon nañ la lool nag nga def sa rouge bu baax baax ah, man daal daal daal man lii moo tax mardi dama koy yàkkamti ndax euh, sañse yi xam nga sànq maa ngi koy wax Mado euh, boo ko jegee rek euh, ngay dem xew ah macha allah bu la sàjjee rek yàb la dinañ xam ne Mado moo fi jaar te loolu dafa am importance bokk ak ay nit plateau jël seen kanam maquillé leen ba mu rafet te bu la neexoon na nga ne xaaral ma rëdd crayon bi ci suuf muy déborder mhm. kon dërëm namoon naa la maa raw fuus besel di la di am mbégte kontaan rek jàkkaarloog yow ni ma koy defee saa su ne rawatina jaw farama jaw xoor yoru jaw booli mbooc li nga wax rek la damay dolli di nuyu Sénégal yëpp di wax na leer gi li ko waral mooy dama jóge fu tedd fa jiitu fa yàgg fa lool jóge Touba am fa fukki fan ak lu teg mm-hmm. comme xam nga kooku bu ñëwee leer rek la mën indi di Sénégal yëpp rawatina waa Touba Mbàkke gi ma jóge mm-hmm. rawatina sëñ Mamour ak Ibrahima Ndaw ñi nga xamante ne ñoo ma doon toppandoo ak uh, soxna Anta maam Anta Mbàkke Mbàkke ay sa ku ma xool xam ne am na fu ma nekkoon mm-hmm. uh, Touba Mbàkke di nuyu nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ne nag li nga wax rek laay wax ñuy kilifa aada ak kilifa diine dugg ci biir prison yi ñaanal ña fa nekk yàlla teggil leen nattu bañ leen teg dugg biir hôpital xool ña fa ne seen yaram suttante yàlla teggi leen natt boobu ba ñu dellu ci seen i activité di ñaanal Sénégal gépp di euh, di leen ñaanal di sàkk si ñoom ñu ñaanal di wax nag tey dañu nekk journée boo xamante ne mm-hmm. tubaarkàlla ki nga xamante ni moom la ñuy fêté anniversaire euh, décès muy ku ku fooroon ci ñun muy suñu yaay hmm. euh, léegi rek bi ma demee salon Mado di defaru uppukaay bi mu yoon dama ne ko Mado jox ma ko parce que dafa nuróog li ma sol hmm. mu ne ma uppukaay bu ma fonk balaa nga koy jore il faut ma dem ko ba ñu xam ne sama yaay moo ma ko joxoon musul génn de mu ngi man naa tax mu génn parce que man maa ko jëlee fa ko teg fu mu mm-hmm. fon ko sax mm-hmm. ma génnee ko ni ko lii dafa nuroog li ma sol dama koy yóbbu mm-hmm. mu ne ma doo ko yóbbu ndax eh, lii sama yaay moo ma ko mayoon ci xolam moo tax tey dinaa ko yore ba mu neex ma ma doog la koy jox ma ne ko jëlal soo paree nga jox ma ma ëpp ndax yaay ja saafara mbooloo la woon kenn du ko këppoo da ngay laal sa moroom laal ndax nekkoon na nit koo xamante ne ci yiw bi ci yar bi ci kàddu yu sell yi ah ak ñeme lu métti benn jour daf may dama koy fàttali besel mhm. ma ah, ma teg ay xef waaw tubaarkàlla waaw la <laughs> mhm. mu ngi nii yéen a ngi koy gis Sénégal yëpp puisque dafa nuroog li ma sol ah. ma dem salon bëgg ko jël mu ma doo ko yóbbu parce que sama yaay dafa sori ci man sama yaay déggéen moo ma ko mayoon te moo ko daan yore Mado xam nga parfum bi <laughs> nan laay ndee parfum moom lay xeeñ ba léegi comment ñun ñëpp di ko roy nag ci yu baax yi yiw yi mu nekkoon jigéen jàmbaar jigéen bu bëgg lu baax jigéen bu wax lu baax euh, daf damay fàttali rek lu ma waxoon benn jour dañ may tegal xef may jooy xef yi saf lool ci man man ko dindil ma lii dafa metti munuma bu ko waxati dërëm day jigéen day ñeme lu metti comme ñuy fàttaliku suñu yaay jooju nga xamante ne moo ñu daan digal lu baax di ñu ko def loo kon déggéen yàlla na suufu Tuuba oyof si kawam foofu mu nekk gënal ko fii mu jóge ñun ñu ngi koy jooy ba tey te mu suñu xel ba tey te duñ yoon ndax ku toog fii di wax ci ay gestam ngay waxee kuy def ci ay gestam ngay defee ku solo moom nga solo comme déggan ba tey yaa suñu xol fii fàttewuñu ko euh, li nga li nga xam naa ne tey moom tey mm-hmm. dina xaw a metti torop mais dinañu jéem a oh. bés xol yi euh, te sant yàlla rek parce que référence la royukaay la liggéey na fi liggéey boo xam ne ni euh, képp ku nekk si milieu bi nga nekk jigéen yaakaar naa ne tey war naa mën a doon sa référence war a doon euh, sa sa sa royukaay ndaxte depuis fa mu tàmbalee la woon muy RDV muy def confidence ba yàlla indi ko fii tey mu nekkoon di jàppale ay doomu aadama kon nag nee naa ko moom référence la ci millier bii ñu nekk xam nga man début TFM dama bokk ak moom ay ay coow yu bëree bëree bëree bëri fu ne début euh, TFM euh, tout le temps mun naa am nee naa la bàyyil simple bi jigéen da ngay defaru na dëgg del defaru del make mu ne ko taa déggéen bugguma maquillage mu naa ma noonoo danga nga war di defaru nit booy génn sax ngay dem boutique ba am na noo xam ne ni mm-hmm. war nga ko war nga ko mën a mel kon koo xam ne da doon jàngale yéene ñëpp jàmm li mu mm-hmm. bëggal boppam loolu la bëggal ñëpp ñëpp mm-hmm. boo ko gisee sourire bi ngay ngay njëkk a gis xam naa li ñuy def rek mooy miyaa nañ dem seetaan image yi après dellu si waat yéen di ngeen tooyal suma xol bi. gis nga moom dimanche tey yëpp xëj mënuma ko xool. waay waay ko fii àdduna demal maa ngi ñëw la kon moo tax rek euh, def lu baax rek am solo euh, def lu baax wax lu baax jëfee lu baax. ba boo fi jógee rek jëf yu mel nii nit ñi di ko fàttaliki te xam ne àdduna dara dara dara dara dara dara jaru ko fi façon solu bu ne taa déggeen solu na ko façon sañse bu ne taa déggeen sañse na ko façon mbaax bu ne lu rafet lu ne boo waxee mu ne la ma noppi garmi laa yor duma ma dégg loo xam ne safaan wala donc loolu yëpp yeete la euh, nekk nit koo xam ne ni euh, bokk ak moom plateau lundi ñuy tourné waxtu dog jot xamuñu woon sax ndekete taa dégeen dafa wooroon li nekk ak ñun ci plateau bi yëpp ba timis ma may ma ma parce que damaa wooroon man da nga wooroon woor rek lay damaa wooroon je me rappelle tout weeru safar bi woon fois fii la euh, émission boobu émission togg maa ko invité woon mais coono boobu yëpp mais noo sentir que ne taa dafa woor non macha allah franchement euh, yal na ko yàlla lafal cat mais yal na rëccu yal na rëccu li mu yàggee woon àdduna yal na ko foofu gënal euh, vraiment euh, tey xam naa ne moom xam nga man moom maa gën a kii moom il faut ñu xaw a ñu xaw a dëgër dëgër lu manoo tuuti ah. mii kenn du yow <laughs> ah. ndax sa xol gaaw a jooy nga waaye lii tey képp ku ko setaan sa tooy na muy yow muy man mm-hmm. ñun ñëpp mais nag dañuy delloo suñu xel ci yàlla te xam ne yàlla mi ko soxla moo ko jël mm-hmm. niñ ko soxlaan fii moom noonu la ko soxlaa te tubaarkalla macha allah rafet nañ jot ci moom ndax éduqué woon nañu éducation bu baax bëggoon bëggoon sañse bëggoon sañse te ñun ñu fi bàyyi tamit ñun ba tey kenn euh, ñun ñëpp ñu ngi def lim ñu fi bàyyi woon comme defe naa ne tey jii moom it fa mu ne xolam sedd na parce que tubaarkàlla macha allah sànq bi ñuy solo Mado dani du sol yi day solo man na ko sañseel ba mhm. parce que moom dafa bëggoon kuy sañse. dëgg la man ko sañseel ba rafet ñu sañse ba rafet fa mu nekk. mu xam ne ñun ñu fi bàyyi woon. mujjewuñu puso bi mu réer mhm. te yal na ko yàlla yiir leeralal bàmmeelam oyofal ko ndax euh, euh, jàngale na fi nit defar na ay kër mhm. jàngal na fi nit ni muy toogee sëyam jàngal na ni jigéen dafa war a mhm. oyof yor noppi garmi yor gémmiñi garmi da ngay gis lu hmm. ñaaw sax nga saxal ko ah comme taa déggéen daal tubaarkàlla macha allah wallaahi tubaarkàlla ñun ñëpp ñu ngi koy ñaanal daal wallaahi wallaahi macha allah dañuy dellu di sant yàlla rek comme ñu ko waxee rek dañuy wax alhamdulilah ala kulli al loolu dafa am solo ndax dégg naa ustaasi di ko jàngale natt lu mu diis diis nit ki da nga koy sante sunu borom moo tax alhamdulilahi ala kulli al bi may ñëw dama ne woon du ma jooy ndax li may jooy jooy naa ko ba noppi diggéen sax ni ma ko war a jooyee yàlla xam na ne jooyuma ko ndax bi mu may dudd di dem boobu mi ngi ma wàcc maa ngi wan lor te loolu mënul ànd ak ak jooy foo dem docteur yi nee la àndul de ngay muñ di wanaasu mm-hmm. te loolu da koy gëm ndax dund nañ ko waaye sant yàlla moo tax ba tey man xam naa ne di ma war a jooyee yaay jooyu ma ko ba tey moo tax démb ci guddi sama xol tooy waaye bu ma ñëwee tey gis macha allah ñoom Mia ak waa télé gépp teg lii dañ koy sante sunu borom waaye kii dañ koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla ñu yàlla na ko yàlla lafal cat looloo am solo parce que sànq yaa ngi koy wax dafa nekkoon soxna soo xamante ne dafa bëggoon lu baax déggéen ak bëggoon lu baax ah, may laat ak di laat ni àddina bi may xam ajaa déggéen yi yàggul mm-hmm. six ans kese la am na ñu ma ca jiitu fop am na ñu ko njëkk xam mm-hmm. waaye peut-être yàllaa dogal sama digganteek moom mel noonu ci six at donc juróomi at ak benn mm-hmm. waaye mel na ni moom moo ma meññ jur premier jour bi may njëkk gis daf ma xool ne ma sama res nga mhm. ma di ko yëg léeg damay wane sama cofeel ci moom ba damay ruus ndax géy njooro ba si bàcc tégg balla ak maram balla mhm. moom kenn gënu ko ndax gëm naa ne man sama yaay ku yiw la mhm. waaye mbaaxam ak yiwam ak léppam moo bàyyi sax tey ma xër-xër boo xamante ne ci déggeen waaye léeg sax mun nga jëfee nit gàtt xel ne kii dafa xeb waajuram mukk man doomu waajur laa dama bëgg waajur muy góor muy jigéen muy pàpp muy yaay waaye nag kii da cee rawati seede laa ci bëgg bi nga bëgg sa dafa baaxoon mm-hmm. bëgg lu baax bu doxoon xet gi bu pare foo amee waajur bu baax mm-hmm. sa yaay mu jur la ki mm-hmm. nga xamante ne moo la meññ wallaahi meññ laa la wax de ki la jur doom da ngay bàyyi mu nekk doomu ñëpp ndaxte doom mhm. bi jëriñ kenn xamu ko mun nga jur sa doom te du la jëriñ nga gis doomu jàmbur dem mhm. jëriñ la <laughs> jigéen ju baax bu ne boo juree doom nga gis nit ku baax jigéen bu baax da nga koy bàyyi mu yaral la sa doom wala mu am lu mu yokku ci yow kon taa dégéen mhm. gàcce ngaalaama waaye sa yaay tamit gàcce ngaalaama parce que bu ko neexoon tamit du ko def waaye dafa am lu mu gisoon ci taa dégéen ba moo taxoon mu bàyyi la ko ak milieu bi nga ci milieu bi mu am lu bari lum la ci xamal kon voilà donc du du nit ku nekk nit ku nekk da ngay am foo xam ne foofu ngay féetee dëgg la waaw donc yàlla moo leen boole loolu kenn mënu ci voilà yàlla leen boole mi yaa lii yëpp ay liggéeyu mi yàlla waaye am tamit koo xam ne kooku tamit duñu ko mus a fàtte parce que foo gisoon oh. it foo ko gisoon tey télé bi naa télé bi tey ak euh, suba la ki euh, kii carême euh, àllarba àllarba eh, Karim Samb gis nañu tamit eh, ki xamante ne moom mooy Mariane mu wax eh, wax bu am solo loolu mooy ne nit dina fi jógee mm-hmm. mm-hmm. waaye di fi bàyyi jëf joo xam ne ni bu rafet boo xam ne mën naa jëriñ mm-hmm. askan wi mun naa jëriñ aduna bu ñu jëlee benn exemple amoon na ay moment réew mi xawoon na yëngatu waaye dañu dem xooli ji maam Abdoul Aziz Dabakh kàddu yi mu waxoon ñu indi waatal ko tegalaat ko nit ñi te ak wax yooyu nu mu yàggee te ba léegi ni wax yooyu ñoo defaraat. Mm-hmm. kon nit nit ku nekk lii. Mm-hmm. doomu aadama bu nekk dañu toog fii ñun rek xamuñu kañ la ak mm-hmm. naka la yàlla rek a xam moo tax përti përti beeg dara jaru ko fi dara jaru ko fi yéenante lu bon lekk yëkkante lu bon leeg waxante lu bon leeg ana ñu ñoom tey ñu fi ñun ñoo fi nekk waaye ëllëg dinañ toog tamit ay nit waxal moom ak caat. ndeysaan taa diggéen ak caat ñu daje si salon Fatlay. Eh, Fatlay Kena Amadou Boubacar waaw jour boobu ñu ngi fa añee ceeb bu. ceebu jaga bu bu neex sax mu ma ne ko comme que lii chaque jour fii la fii am man chaque jour damay <laughs> ma yow bokkoo si di ma siis yaay dégg ah, ma ne daf may mhm. munu ko ñëpp maa jur munu ko munoo ku ñëw nga ibbi sa xol bi yaa ma pare nga dugal ko caat mooy ki fi nekkoon tey def léegi cent pour cent moom it mu ma siis munu ko yaay mhm. mën nga xale bu ñëw ci télé bi boobu laay dooru dugg si TFM xale bu ñëw ci télé bi dañ nga def ko di ma siis nii wallaay ndeysaan mu ne ma ñëpp jur maa nàmpal sama ween bi nii la ko defee jour boobu ci àddina bokkoo ci de ma ne ko foofu sama yaay wallaay wallaay moom la ñëpp la juróon wallaay ba ci kiy nekk ci vigile bi di nettoyé wu ki nga xamante ci bunt bi bàyyiwul kenn bëgg ñi nekk ci réseau bi xoola image bu ñu wane ñoom Babacar ah, ñoom Daouda Gueye loolu muy lu yàgg xamante ne macha allah mais xam nga man li ma ci jàngat mooy ginnaaw mbaax bi ndax mbaax may wër na àddina macha allah jikko ji tamit wër na àddina macha allah ak melokaan bi parce que comme ni ñu ko doon waxee elle avait le sens de la beauté le sens de l'élégance xamoon ñu war a soloo respecté ko ah, du sañse ba nga xamante ne bu soloo nga ne daanaan kulli fadrin xet bu neex ba pare naan la jigéen da ngay yeesal sa xet maman macha allah dafa bëggoon baax ba naan la sa balcon da nga ca def àndu balcon mm-hmm. ma naan ko maman ana ànd ak balcon mu ne ma waaw dafa baax dëkkandoo yi cuuraay gi léeg-léeg di jol joli ñu naan kii kër kan la kër kële la ëllëg ñu di la ko fàttaliku donc tey xam naa ni ci an Mariste boobu seen xel ak seen xol yëpp dina dina tooy ndax danañ nam xetu cuuraay ba fa doon la di fa jóge te jógeetu fa waaye lu mu ci munti doon rek mooy valeur yi man moom laa wax parce que jikko ji. xam nga nit di nga ànd ak moom mais boo seetoo ba ci biir dem ba ci biir maanaam gis bëgg. Mm-hmm. miin bañ dafa am. Mm-hmm. mais moom doo ko gis bëgg miin ko bañ. Mm-hmm. da nga koy gis bëgg ko. waaye boo ko miinee ci nga koy gën a bëgg. ndax la ca biir. la ca biir mooy lan mooy nit ki nga xamante ne dafa amoon diine. am iman te loolu da ko nàmmee ci waajuram bu jigéen mooy ki nga xamante ne moom moo di Kamara Jibi Anta Boy mère bu sedd ku wax lépp nag dangay catu doomu jàmbur waaye li ma naan sama catu làmmi nag sama xaala xii na mhm. amul bës bu dul jot waajurum bu jigéen du wàccee kaamil munta ne kon kooku bu ko déggeen defee da ko meññee ci ay waajuram mu jigéen te ñoom ñëpp nag ba ci mère g bi nekk ci biir suuf oh. ñoom maman Nafi Chimère ba ci caat Tata ak ki nga xamante ne macha allah aussi moom mooy tata uli donc seen yaay daf leen nampatal ci loolu mais jox leen ay valeur dégg daawul jëw ñi ngi ci télé mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen wallaay ndeysaan ci li ma fekkee bëggul wax waxi jàmbur. loolay dëgg danaa la noppi gar boo leen toogee mais xam nga mun na ko wax ñu ne yëfi télé la. waaye man mi ko jege dugg ci biir këram dugg ci biir néegam xool ko mun nga fa toog. Mm-hmm. nit ku nekk nit nga kat. Mm-hmm. léeg-léeg man mii ma kaa. bu bu keneen kaa. <laughs> li ko firndee la nga ni am na benn groupe bu kaa bu fi xew bu yàggul. dégg naa waaw. <laughs> dégg naa bés biñ ko créé dafa fes dell maa ngi ci télé. Mm-hmm. groupe ci Facebook ñu bindee ko groupe bu kaakat yi yaay laay li laa chaque jour ngeen tàppe dossier waaye moom daawul tàppe dossier ci lu baax xanaa nga ñëw wax ko kenn dara dal na ko wala yéen ñaar xulloo ngeen mu defaraat ko te oh, kenn du ko yëg mm-hmm. sangam bi bu ñëwoon maître ba bu papa tamit maa ngi koy masaw bu baax a baax di ko nuyu bu ñëwoon maman ci 6 ans nit di nga def benn yoon ñaar ñett waaye bu ñëwoon pap maman day raam oh. mujjee bi day raam nag man ma mer naan ko non non maman arrêté raam amoon tournage ne ko may sa baabu jonaay ba. waaw man dañoo amoon tournage. 6 ans xoola mu ñëw bàyyi tournage bi daw mu ne dama koy dem taajalil ndogom. wax na dëgg mu dellu si waat. bese loolu moom tournage la ñu amoon. jamono jii ba ci man mi roy naa roy roy roy roy roy ba àddina yëpp nee ma dama ko nuru te nag ma koy nangu nag. waaw macha allah yàlla mel ni moom moom. ndax lan booy roy da ngay roy lu baax. waaye nee naa la man raama lu ma sang. waaw ah, te moom waaye maman dafa doon jóg mi yaa nga baal ma sukk def nii ne ko may sa baabu jonaay ba ba papa romb yaa xajaa mujjee bi ma yëkkati ko boo ko yëkkati mu naan nii du xameen nga maman nu mu meloon day soor waaye da koy ci 6 ans man baax naa bëgg naa yooyu waaye kaay bu ma la raamalee suba nga manquel sama dépense dinaa la naan nii <laughs> waxtaan wax dëgg ca la daf ko jëf ah. dafa baaxul sax macha allah dañ ci dul sax moom du ci sax loolu la surtout loolu xam nga comme li nga wax li nga sax ci loolu moom mooy moom mooy euh, mooy jafe jafe mais parce que ñun xëy na di nga ko def ñaari fan ñetti fan après ah góori la waa kay tey ñu jox la dépense suba duñ la jox waaw ah, bu fekkee gis nga tey defaru takk lu baax ñu ne kee ma ngay liggéey ca télé Youssou Ndour ba li muy fayeeku bare na macha allah ci kaw kon nag na nga wàññi waaw ne ana kii kii jabaru directeur la ah déedéet na nga wàññi. waaw non dañ lay naan fii la benn bi wala ñu ne la kon xam nga bu ñu ko defee dangay ngay saay naan. waaw sa xol du nangu wala leneen mais moom du ko def. ndeysaan kon nag Mia da ñuy may benn clip rek ñu dellu si waat léegi léegi si euh, plateau bi tànka foore <laughs> ah, donc euh, loolu loolu dëgg la àdduna mm-hmm. moom euh, nii la rek duñ ko mus a fàtte mm-hmm. dafay nekk si suñu xol yi dafay nekk tamit saa yu ñu jullee tamit di ko defaral ay ñaan donc parce que heure bi du jooy la ñu soxla mm-hmm. lu soxla moom mooy moom mooy ñaanal leen ay ñaan moom la ñu soxla te yaakaar naa ne képp ku ko xam ku ne saa yoo jullee rek di nga ko ñaanal. wallaay dëgg la waaw mu nekkoon nit ku baax nekk royuwaay. du dañ suñu xol du dañ nekk si ligne bi nañ ko jël parce que tamit dañuy maye njogonal yi ah. <laughs> a maye nag ak bëgg biyee yu bees. soxna si ñu lay nuyu noo tudd ak fooy woote. man maa ngi dëkk Allou Baye Niakh. ah ana waa Allou Baye Niakh. maa ngi tudd Ngane Fall. Fall Njaga Yaaram ñu ngi lay dalal. ñu waa Allou Baye Niakh. ñu ñu ngi lay dalal. waaw maa leen di nuyu yéen ñëpp. lay fay waaw di ni wax ni damaa kontaan ci émission bi rek ngir suñu yaay jooju ngeen tudd. ndeysaan koo xam te ne ku ñu bëggoon la. Mm-hmm. man mun naa ni wareef daaw ma ko tàppe. Mm-hmm. wallaay chaque jour bu mu saan am dama yàqante pare sama léegi toog jàkkaarloo tata dégg si mais di ko seetaan. wallaay ma bëggoon ko lool un jour dama ko woo ma jot ko téléphone ma ko tata man ko su maggee màggee yàlla mel ni yow. amiin mu ne ma waaye sama doom. ay waay yow kontaan naa man ko bilaay mm-hmm. boog mooy papa Ndiallo ñu ngi toog ñoom ñaan mu nekkoon ku ma bëggoon. dëgg la te dafa baaxu musuma ko gis nag mais ku baaxoon la. Mm-hmm. ñu koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla xare àjjana. amiin amiin yaa rabbi ko malaaka yéen mën a teeru. amiin yal na yàlla leeral bàmmeelam. amiin yaa rabbi doon defee ci àllaaxira. amiin dëgg yàlla manqué nañu. mooy jàll adduna yëpp ba tax na kon uh, xam nga moom dafa amin dafa yewee noonu ba bëgg maye buy maye da doon kontaan day kontaan kon ba tax na rek uh, may nañ la quinze mille francs dégg nga nga nga ñogo naloo ko ah jërëjëf kontaan dañu torop nuyu ñu waa àllu bàyyi ñaax ñëpp di leen bëgg mhm. di wax ne tubaarkàlla wax na lu rafet mhm. te képp ku duggit ni moom ngay def waxaale na ñëpp mhm. comme nañ ko ñaanal rek yàlla oyofal dëgg la am tamit loo xam ne nag saa su ne rek euh, octobre bu jotee dañuy nekk octobre rose wax octobre rose nag moom mooy euh, cancer euh, bi nga xamante ne dafay faral nag di sonnal jigéen ñi lool lool di leen dal donc signe bi boo leen ko gisee rek mooy ñu def nii waaw mooy octobre octobre rose donc di wax na ñëpp dépisté wu surtout. Mm-hmm. Euh, jigéen ñi ñu dem saytu ji seen yaram. dem mm-hmm. xool seen yaram parce que c'est très important. Mm-hmm. jàngoro doo soo xaaleeg moom ba nga xamante ne bu demee kenn dootu ko mun a faj. rawatina nag franchement damay lancer benn appel euh, médecin yi euh, franchement dama leen ko ñaan lillahi wa suuri wala état bi. et am na aussi ay association yoo xam ne dañ koy def. di dem yóbbu médecin yi ñu def leen consultation gratuite mais nag surtout surtout. surtout surtout mm-hmm. jigéen ñi surtout mm-hmm. jigéen ñi ah euh, il faut que ñu jàppale leen si li nga xamante ne moom mooy cancer bi mm-hmm. cancer du sein cancer col de l'utérus xam nga donc yooyu yëpp franchement war nañu dimbali jigéen ñi nga xamante ne dañoo dëkk ca kaw ga sonn xamuñu ko parce que des fois da ngay dem dëkk village ah, am na benn benn benn image bu ma fa assisté boo xam ne nii franchement euh, daf ma daf ma daf ma daf ma soke ndaw si ba ween bi génn de dëtt oh, xam nga donc mm-hmm. neewi euh, il faut que daal ñu ñu ñu mm-hmm. xamul moom pour moom benn taab moo bi rek xam nga waa di ko faj faju taab yooyu mu dem ba métastasé wu mm-hmm. donc franchement nañu nañuy sensibiliser nit ñooñu des fois ñuy organiser une fois par mois wala deux fois par mois nañu dem les villages les plus enclavés voilà les mhm. les villages les plus enclavés du Sénégal. Mhm. waxuma nga mhm. dem Tamba région de Tamba yem fa déedéet. da ngay dugg ci biir àll bi. yow dañuy def benn horaire ba boo <laughs> xamante ne yaa koy organiser noonu ngay def. avec plaisir mais ce su may dem horaire bi Mado lu ne lay daj. Eh, moom la xam nga donc après boo demee ci. as tuuti li nga kii mhm. danga leen di sensibiliser des fois nga mhm. leen leen daf leen nii ngeen mhm. xool est-ce que am waa voilà xool ak yeneen ak yeneen ba ci service hygiénique yi nga xamante ne sax dañ koy utiliser yoo xam ne se terre à dañoo xamul xam nga dañu xamul donc aussi nañ leen jàppale parce que ñoom tamit soxla nañ ko ci réew mi la ñu bokk mm-hmm. euh, soxla nañ ko euh, donc rek ñu ngi ñaanal jigéen ñi yëpp wér mm-hmm. mais adduna bi wér mm-hmm. ñu lutter contre le cancer bi nga xamante ne franchement dafa sonnal euh, jigéen ñi voilà c'est une maladie sànq bi ñu ñëw ñu ngi romb fu ñu koy defee gratuite dama naan mu ne ma ñun ñaa ñëpp bu ñu dëppee dinañ fi jaar parce que fii ci deux voies liberté six ñoo foofu ak seen cas Mm-hmm. gratuite pour ñëpp mm-hmm. comme jigéen ñi nga xam ne mm-hmm. yëgaguñ ko nañ fa dem ñu seetal leen parce que jombul kenn luy yàlla tegal la natt bu muy tegal la ah, te jombul kenn comme ñun ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo leen romb gis leen ñu ngi wax ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan ñu dem liberté si si deux voies bi ñu ngi foofu ñu seetal leen ba xam feebar bi nekk na si parce que fagaru moo gën faju te néeg ba mu gañe la nga dem di faju day fekk faj ba metti lool te tey suba ki nekkoon yeewu leen rek mi ngi koy wax. wallaay ni faj bi métti na ni ñuy diagnostiqué xaw ma nu ñu koy waxee. métti mm-hmm. na cher na. comme balaa loolu yëpp di am nag nañ dem liberté. si deux voies bi ñu profito xool ñu xoolal leen mm-hmm. ndax fagaru moo gën faju waaw mooy dërëm li nga wax rek c'est un mois boo xamante ne dañ koy jaglelee lépp ci loo xamante ne dafa jëm ci wàllu cancer. Mm-hmm. donc bu ñu déggee octobre rose mooy maanaam njëg bi ti d'habitude mu doon day dañ koy wàññi maanaam bu fekkee da nga doon fay vingt mille exemple la du loolu mais comme bu fekkee da nga doon fay vingt mille boo ñëwee ba ci weeru Euh, octobre bi dañ la koy wàññil nga fay ci ñaari junni kon nag nit yi war nañ ci mun a profito dem seet li nga xamante ne moom moo di seen bopp saytu mu di ay frottis vaginal comme nuñ koy waxee pour euh, cancer du col de l'utérus mari mm. moom moo di cancer du sein parce que dafa metti donc ah. bu ci kenn am mm. complexe mm. nañu dem xooli waa Liska ñoom ils son là pour là pour ça te dinañ la tegtal conseiller la naka nga war a def donc di bañ a fàttewaale aussi parfois une mauvaise alimentation daf koy joxe donc il faut nit yi di xool bu baax la lekk parce que la plupart cause bi loolu la donc je pense que les gens sont conscients ba pare stigmatisation bi ñu ciy faral di wax parce que d'habitude da ngay nekk soxna nekk ci sa biim biir néegu sëy lu mel ni li nga xamante ne moom moo di cancer boobu dab la sa askan beddi la sa ay mbokk beddi la rawatina nag ki nga yaakaar ne moom mooy sa sang war la taxawu comme ni ko chrétien yi di waxee pour le meilleur et pour le pire war la accompagner mais malheureusement dañ lay bàyyi donc je pense que il faut que ces gens là aussi soient conscients ni xam ne képp ko am jàngoro jàngoro bu am ci kaw suuf am na pajam mm-hmm. léegi teel ko yëg pour mun ko bañ mu propager wu comme ni nga ko doon waxee mu métastaser wu mhm. te buñ ko téelee yëgee dinañ ci def li war ba nga mhm. xamante ne nit ki mun na tane donc ñuy massaw toutes ces femmes là mais boo ma ko mayee rek ma dellu rapidement mhm. ziar bu baax ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan ku mel ni ki nga xamante ne moom moo di Adja Kine Ndaw borom Mbour nekk ci fii nga xamante ne moom moo di mbuur géej wax nañ ko kooku nag moom moo di doomu ndeyu Adja Dégène qu'elle repose en paix maman Kinouchka moom nag mi ngi nuyu kenn koo xamante ne dafa soppoon maman ba Mauritanie saa su ne dafa doon yónnee ay bagages Euh, Baal moom itam depuis la Mauritanie ku bëggoon maman donc euh, ñi nekk Mauritanie ay soppeem ñi ngi fépp ñi ngi leen di nuyu waaye Ousmane mi nga xamante ne moo doon noon gardien ba mm. waaye doomam la woon sax moom itam ñi ngi koy ziyaar bu baax a baax ndax dem na ba tuddee doom sax euh, borom këru maman donc nag moom itam ñi ngi koy massaw mi ñuy seetaan waaw loolu rafet na baax rek moo am solo daal mm-hmm. nee naa daal aduna daal lépp loo def mm-hmm. te defoo lu baax mm-hmm. doo am lu baax soo defee lu baax am lu baax te boo liggéeyee fee lu baax boo demee fële mu fekk la. wallaay kon ku ci yebbu def lu baax. Ah, marchandise moo jaay. wallaay mudul baax. wallaay bénéfice ba perte la. wallaay dëgg la marchandise moo mën a jaay ci réew mi. waaw mudul baax. bénéfice ba perte la boo ko wàññee perte la comme Sénégal nañu def rek baax mm-hmm. baax rek am solo ah, te dañu baax na parce que Sénégal gi lu baax waaye dëkk ca ah, waaw parce que ñun yàlla <laughs> daf ñu baaxee lu baax mm-hmm. ay mag yu baax ay kilifa yu baax ay wàlliw yu baax. macha allah lu bëri ñun. kon ñun Sénégal kañ gàcce ngalaama. mu ngi noonu nag ñun ñun dañoo am royukaay yu mot sëkk. sëkk jigéen am nañu royukaay. wallaay góor ñi am nañu royukaay. bu fekkee diine l'islam aussi franchement. amul fenn foo xam ne ni war nañ koo war a mën a xooli ji feneen am faay wala parce que yàlla may nañu ko nañu nañu nañu góorgóorlu rek nañu raxasaat xol yi la ma yéene sama bopp naa ko yéene suukar suñu àdduna nag ak di xorom safara Mado waxal ma ki nekk si ligne bi allo allo allo salaamaaleykum waaw man la sëñ bi noo fooy woote maa ngi tudd Arouna a jubba maa ngi ñu ngi delloo bu baax ziar fan ngay woote maa ngi wootee Géejawaay. ana waa Géejawaay. ñu baa mi ngi féex rek mbënd mi baa egg wu fa torop. ah ñu sant yàlla bu baax de. na sant yàgg yàlla na sant yàgg. maa ngi koy jaal yow itam. di ko jaale sama mag Baye Cheikh. wallaay suñu frère moom itam depuis États-Unis. ñu la bëggoon nga ku baax. yaay maa ñu ngi lay fay. maa ngi leen ziar bu delloo ziar delloo kontaan nañ bu baax sax Oh, dem na dañ ko bëggoon laaj lan la gën a man ma ko gën a marqué sax donc euh, xam naa ne téléspectateurs yi ñuy seetaan seen xol tooy na mhm. waaye tamit xam naa ne fi ñu toog tamit euh, bég nañu loolu nag mhm. euh, naqar nag ak bànneex ñoo ànd mhm. moom nag dafa bëggoon maye bëgg di togg di joxe di teralaate bëggoon paella sénégalais waaw xam nga boobu mooy ban mooy <laughs> ceebu keccax bi xam nga dañ naan paella nañ togg ay paella mu ne la léeg-léeg doolay yemul pour te dire que elle avait tellement dafa buggoon koo xamante ne dafa néew ji doole da leen di ah, sóoraale mu ne bàyyi leen di wax ay payela ay kalamaar ak baax baax yooyu du ñëpp ko mun mu ne léeg-léeg nga tobb sa ceeb bu keccax bu neex nga def ci sa ay sippax bu la neexee def ci sab koti def ci sab maanaam lépp loo xamante ne neex neex la nga tuddee ko payela loolu laa tuddee payela sénégalais mu bëggoon ko lool oh, nag non mais Mado ceebu keccax dafa neex ah yow tam bàyyi ma ceebu keccax kay kenn du moom ah? surtout sax bu tawee ba xaw a tooy mu xaw waaw ñebbe bi xam nga ñebbe bi commencé naa ñor ci dëkk tamaate merci daal <laughs> merci di wax ni rek tubaab est-ce que duñ ko ko toggal reer kër ga te sax tey ah man nag bu amee géej yes wala tuuti saafara ah, géej yes merci kooku moom da ngay dem ba Podor ñam ci géeju yesam dootoo ko defati billaahi waaw waa Fuuta kon bàyyi ma ne ñebbe bu bees bi dañ maa may saaku ñebbe bu bees ah, ma di nga a ñëw plateau am naa ci ah, saaku que ñebbe ñor sama lex yi allah ah baax na <laughs> ñebbe moom fer la. denc kii rek baax na fer la ah, waaye denc romb tuuti rek waaw. masa ah, dinaa la dollil saako ñebe. Ah! baax na man maa dul toogati fii. il faut ma dem baaba garage bi daf may ma ne monsieur Birane Ndour may naa la ko waaye weer wi du ma toog ak ma sel ci plateau bàyyi <laughs> <laughs> ñebe. ñebe baax na fer la dëggal dëgëral te set la. waaye euh, nañu ne am na ku nekk si ligne bi nañ ko jël allo oui. oui salaamaaleykum. maaleykum soxna si na def. maa ngi si. jàmm. Euh, foo ñuy woowee. maa ngi euh, noo tudd. Alima Fall. Eh, Ali Alima ah Fall Ndiaga Yaram bisimilah yegg yow la déglu. Ah, euh, mhm. merci. li ah man amul benn problème yow dañ lay may si xéwal gi euh, xam nga nu ñuy def. Mhm. bàyyi ma ma ma ma ma ma xool Mado. mayal ma ko léegi man yow man sama sama teraanga yëpp dama koy may maam Kumba. Hmm. alors Kumba ca kaw moom na wax rek lan la yéene ndax tey mooy moom man maay man tey moom sama affaire yi moom la bëgg. ne ne ne nee na nga may ko 10 000. waaw na jël maa fii. oui. alors yow daal tata xam nga lu muy def. jox la benn petit dix mille rek boo xamante ne moom ngay fayee sa crédit rek oh, li ci des tu prends un peu de boisson pour te rafraîchir. xeex aywaay jaaraati ma fille jaaraati. <laughs> Mado. oui dix mille pëtiwul de keroog ba ma amee aajoom besel ni ma ko tib. wuyu ma xam naa ne dix mille pëtiwul rawatina tey. <laughs> Mm. Ah. rawatina tey. waaw ah. tey moom <laughs> ah. ñaari junnu bu ko dafa woon. gëm naa ni dana fecc dana pooj ndax daf daf maa wax boppam tey. ah bon tombeeg nag man mi ma koy wax damaa jógee màggal. te la ma amoon yëpp dama ko jox àddee jox ko sama yaay ji Adja Soxna Baali naa ne am na solo. waaye tey moom xam naa ne soxla ko na solo kii nga ko jox xeebu ko. Mm. parce que tubaarkàlla macha dina la fekk foo xam. jëlee la rukk boo xam ne. Hmm. yow 10 000 ban rukk la lay jëlee ah yow keroog fii amoo noo def. Eh, defuma ah, ah amoo noo def xam nga bi ñuy jóge suñu place wax na ko en direct. Hmm. Ah. daf ko jël ma ne ko bul ko yëkkati. Hmm. ndax lii macha allah bi ma ko jotee ba tey. wallaay ndeysaan ñi ngi ci 4 ans mosul jóge fu mu nekk. foofu rek la nekk macha allah. te mi ngi nii waddal na ci benn dunk. delloo di foral dugg ba nga foral <laughs> dugg bi waa kay foral dugg bi waa kay ma ci xeex en direct tubaarkàlla ma bi loolu moom dëgg la moom d'accord naa ci ak yow Mado euh, bu mu fonk la mhm. ndax xam nga dama sob dama dugg salon dugg laaj te di laaj man gis naa ko fa de mais man laalu ma ko damaa xool rek bàyyi man maa ko dem fekk fa mu nekk ma ne ko ah Mado bi nuroo nag sama yére bi de mhm. tee ma ko yóbbu mënu ma tegal maman moom ma ko mayoon te dama kaa fonk ma ko tey nag comme que journée maman la dañ koy yóbbaale mu ne du dem ma ne ko dem force ñu wax ma dugal ko ci oto ba jiitu teg mu ànd ànd ak man ñëw comme wax na dëgg dunk bu ci deñ hmm. ah tubaarkàlla waaye nag euh, euh, mujjewoo puso bi mu réer <laughs> ndax bu baax gu nekkoon ci dégg mu ci yow wallaahi dëgg la da ngay yëkkati say takkaay di ñu jox hmm. di ñu defar ba mu rafet yow it doo dégg lu ñaaw doo wax lu ñaaw ah yàgguñu ci palaatoo de waaye gisaguma loo ma def lu ma metti wala lu ma la def lu la metti te ci yow la ndax pànk naa de un ah. mm, kaay xeex ma gën a kaay lekk te ragal naa kenn musuma àtteeg yow <laughs> comme ci yow la comme baax gi di <laughs> am ba nga bëgg ko di ko roy mu ngi ci yow jaw ma jaw foofu elle man comme lu may wax souvent su may wax nee naa leen man du TFM laa xamee Mado. Mado madoo xam naa ko. da sa fan si laa di la wër ci bàyyi loolu. <laughs> loolu ngay wax bëgg ma suturaal. <laughs> non non bàyyi loolu. dafa dafa ma doon gis jël sama tànk yi defaral ma ko ba mu raf ma naan ko yow Mado da baax de. donc gis nga li yàlla di def donc yal euh, na la yàlla fay sa xol fi nga teg sa tànk yow tamit bu ko teggi parce que tey bu ñu demee ba xamee la ak tata dégéen mm-hmm. da war a doon mu jeex nag mhm. un bon exemple ci mbaax ak lépp ñëpp ñu ne Mado taa mhm. kon liggéeyal na la donc yow tamit dafa am loo xam ne ni mhm. loolu da nga sàmm te xam naa ne di ko sàmm yal na la ko yàlla sàmmloo ba du ñu gis dara dara loo xam ne safaan la ci barke Seydouna Mohamed kon nag Tata Mia may ñu ay nit yoo xam ne référence lañu foofu ci mm-hmm. Tëngéej rawatina nag suñu yaay ju baax jooju xaar mbay ma jaaga fu mu yuuxoo rek nga daal di békk kon ñu ngi koy wax rek ñu ko jaajëfal lu bëree bëri. wallaay tey bisu référence la. Mhm. comme référence rek lañ ñu mën a tegal. Mhm. ku ñu fi mën a wax rek ku dul ki nga xamante ni tey moo waral bis bi. Mhm. tubaarkàlla macha allah moom it référence la. ci lu baax. ci sànce si yiw ci wax yu yiw. Ah, bañ na ko dafa marqué empreinte Sénégal ku fi wax ci télé di talal loxo ka say say sax ci moom nga ko bu njëkk ku daan wax ci télé da ngay mel ni ku nu gome jël say mbagg ni ko nii yëkkati ko ca kaw taa indi ay tagal ak indi ay kii salañ salañam. seem waaw du ko changer moo tax man leen nit ku nekk ci li nga nekk. fexeel ba marqué sa euh, empreinte def sa signature. Mhm. ñun ñëpp ay mbiram la ñuy dox mhm. muy sama bos ak bosu keneen. ndax bu njëkk ndeysaan da ngay gis ku ñëw rek taxaw ci télé jël ay mbagam tolloole ba mel ni euh, carré. wallaay ni rek taxaw di wax li ngay wax moom na dafa ñëw ndeysaan marqué empreinte am. ci sañse si wee ay xeef. man lu ma ci gënoon neex njegenaay yi. wala dafa gànnaay ba gànnaay bi moom ko tax a man yàlla dogal na ne li du estrage xam nga ni ko estrage ba euh, estrage uppukaay doo bàyyi njegenaay. la lii laa wax. kooku dañ ciy nuyu Waline Waline Fall moom itam ndax Waline xaritam la woon bu ko doon ah, defal maanaam da koy defal presque cent. Diop mhm. saak lay indi jox ko collection bu nekk moom am ci upp ay ak li nga xamante ne moom moo di musóor kon tamit waleen yow itam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu tamit wallaay doomu nday sukkay nu falilu neex a joxe ay perruque nekk ca Italie léegi mi ngi sàjj ay ndab macha allah waaye dama ciy nuyu tamit ki nga tudd Fat sàmb ndax comme ni ma ko waxoon tey bésu ay nitam la euh, donc waxuma sax Fat Samb mu du Adja Fat Samb madame Cissé euh, kooku sunu yaay la kóllëreem la dëkk ca Kaolack waaye Fat Samb bii tamit di chéri Fallou dëkk ca Touba ndax bu ñu demoon kër ga Touba Fat Samb moom ci boppam mooy ñëw ak tonton Fallou ñu ñëw indil ñu bernday ñu nekk fa macha allah euh, donc moom itam maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye Adja Fat Samb moom itam di chéri imam mbokk ndeyu seere ak ki nga xamante ne moom moo di Kumba ak Aminata Fall borom Zurich ay kóllëreem wax dëgg fa yàlla ah donc ñoom Aïcha Thioy ñooñu ñëpp ñu ngi leen di nuyu ndax xam naa ni tey seen xol fees na rawatina nag Ngoma Thiam mm-hmm. ndax mën nañu gis waaye Adja Ngoma Thiam mën na gë moom moo nuru maman moom itam ah, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax bëggoon Ndey Diouf mu sëñ Fall waaw Ndey ah, Diouf mu sëñ Fall lu baax rek na xoolal Nafisatu notaire daf ko sopponte tey yàlla dogal na ndeyam moo wàcc liggéey ñoom Fatou Guewel ñoom ñëpp ñu ngi fa ñu ngi leen di massaw bu baax di jaale maman Nafisatu moom itam waaye ñooñu ñëpp ay nitam nañ woon comme ni nga waxoon tey bu ñu sañoon bu dul woon loolu dañ koy woo fii muy tata Fatou Géwél wala eh, kii bu sëñ Fallou ñu toog waaw yëngal ndax eh, day fàttali yaay dafa bëggoon danaan ko bul fàtte leget gi wallaay wallaay leget dafa bëggoon leget gi wallaay wallaay ñaari baar rek mu ko waa gaa de ngeen ñu seetaan tamit euh, sama waa ji Babacar Bey ma naan ko Babichon Babichon YouTube euh, TFM mun ngeen ñu fa xool donc rek si internet bi mun ngeen ñu seetaan en direct euh, foofu kon nag damay souhaité joyeux anniversaire sama ñaari seex yooyu di doomu Binta yi euh, donc Binta maa ngi souhaité euh, mm. mm-hmm. kan <laughs> <laughs> émission bi baadu ñaar la. joyeux anniversaire boobu. mu ngi noonu nag donc euh, ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire longue vie bonheur mm-hmm. santé sama ñaari seex yooyu kontaan ci ñoom. Euh, léegi nag bu ci kanamee nag danga may deewaat ma déggaat xam nga ma damaa amul dégg-dégg dégg dégg-dégg naar ak bët laa yor. <laughs> comme ni ko defee bese rek xanaa ma këfaale. profité aussi souhaiter ay. xarit laay laxay lala wallaahi kuy dem màkka ku ne. Mm-hmm. àndal ak ka nga xamante ne moom lañ ko tuddee. ko ànd ak maawu màkka. waaw doo tumuraanke loolu de am na doo yàlla rek a tax may wax. maaw mooy mooy mooy moom balaa dara sax mooy neex a àndal tukki. waaw dafa baax sax mais rawatina gis nga maaw foo ànd ak moom. tukki nag mais ba nga dem màkka. maaw àndak moom màkka te loolu xam naa ne. man peut-être maa fi toog di wax. mais képp koo xam ne. yàlla ma yàlla yóbbu. ma ma ànd ak moom dëgg fa yàlla waaye nag Kamil bañ ko mayoon ci aéroport ba ba léegi maa ko jël dégg <laughs> denc ko ak. neex a àndal ak kii ko donc ñu koy souhaiter joyeux anniversaire. c'est son anniversaire waaye. oh Maaw c'est son anniversaire. ah tey moom du ma ko wax ah. noonu laa ko yebee. moom nag ñu ngi koy yow sama papa koy tooñ Ngone tey la anniversaire am. men. ay dëggee bu rakku Carlo di tamit la anniversaire yow doo tey yéen doo leen tey rek ngeen topp ma nee naa leen tey kii wu naar yi ak <laughs> pël yi ñoo fi ne buuba nduur xam nga buuba ah. maa ngi moom suñu rab bi ànduñu léegi man du ma tudd buuba ngoone laay tudd Ah, moo tax nga dëpp ko déedéet tey la anniversaire am. Ah. mais Ngoné Ndour man laay souhaité joyeux anniversaire. waaw man tamit ak sama yaay. ah ndey soxna Mbuub di ko ñaanal gudd fan wér ak wérle parce que nag yaay yi la ñu féete war a féetal anniversaire ah. Mm-hmm. loolu tamit lu am solo la demado. moom itam muy yaay ju baax. waa waaw maman ah. dégg nag bëggoon ko loolu a ajaratu soxna. mu moom itam mhm. mu nekk ku baaxoon ma maman bëggoon ko loolu bu tabaski jotoon wala korité damay ànd ak moom yaay moom moo tax ma miin kër googu daf lay yóbbu ba ci moom wàcc ndeysaan am na benn bës boo xamante ne ak ci maman moo doon faaris di gor mun a muñ am na benn tabaski ñu dem di ziyaar yaayu maman soxna sunu maam mhm. bu ñu génnee ba ci bunt bi ak dàll yi mu soloon rek mu def foo pas oh. daanu ma yëkkati ko nànk ndekete nu mu sëggee ba daanu tànk bi xaroon na dem nañu di ak muñam onkul deful dara ñu dem toog seeti maam mu ne ko maam waxtaan ak moom ziyaar waxtaan ba kontaan ba ñu jóg ba ñibbi ba dugg ci biir oto bi mu ne ma est-ce que xam nga ne dama gaañu dafa yëkkati tànk bi dañu yuuxu guddi googu hôpital la fanaan wallaahi ñu di ko ñaw muñ rek mais du woon onk dëgg la de te man bu doon man sama làmmiñ bu rëy bu yuuxu naa jooy naa man waaye damaa mën a jooy ma gis lu xonk yuuxu sama ba dinañ ma seede ñoom day jóob ma gis tuuti rek yuuxu tijji samay bët yi nga xamante ne moom moo nekkoon ci moom mais j'en profite quand même muñ jàngale mooy muñ nit da ngay da ngay da ngay mën a mu da ngay muñ lu metti mën a muñ parce que que jonge mu ngi commencé ci muñ lu metti day metti loo lool nga ne ak a sedd mhm. mu sedd lool nga ne ak a métti loolu mooy joge mhm. te loolu la ñu daan jàngal mooy metti mu muñ xam nga tey sama genre gi bu duggoon sa kër fa kasta dina la tànqal. yéex ci laa gëlay commencé ca buntu ga laa gaañoo. kon nag xoolal mama mama ndey soxna mbuub sama yaay jooju ndey sana mu ne buuba nduur bàyyi leen bi ngeen di yóbbu horaire bi kaas na ko ñëpp ñoom njaga bàyyi leen doomu yaambur bi ngeen di yóbbu ci àll bi waaw ma ko mama non da ci sonaloon ñoom buuba nduur de mu ne leen bàyyi leen xale bi ngeen di yóbbu bàyyi leen xale ma ne ko maa ko bëggal sam bopp mais xam nga maag buuba moom mooy loolu ah donc mais maa ngi souhaiter rek euh, oh. joyeux anniversaire longue vie nekk nit ku oyof nit ku baax moo koy fekk bureau ba poñe ko jël yulli foo poos yi man moom li ma ñe li ma leen sañ a def moom kenn sañu leen ko def yow ak jaga donc la yàlla may wér ak wérle donc mm. ñun ñëpp ñu ngi la ah, koy ñaanal dadi ah comme yaay waa mu yéen seen dadi la mais man sama xuloo waale la wax dëgg fa yàlla buuba dama ko doon tooñ sax di ko naan te je <laughs> pense que euh, par rapport a son anniversaire ce serait normal aussi ma rendre ko hommage à mm. ki nga xamante moom moo di buuba Youssou Ndour parce que mm. je pense qu'aujourd'hui si je fais la télé c'est en partie ou même je dirais grâce à lui parce ah. que man comme je disais j'étais derrière l'écran machallah di mm. maquiller donc image yi ñu wane noonu rek firndeel na ko mm-hmm. euh, yow topp moment di ko defar rek mais bu ñu defoon émission ba pare dama doon dem toog ci régie bi mm-hmm. bu ñuy woote téléphone ma wuyul ko bés mu romb ma rek dégg sama baat taxaw comme machallah il a le flair mm-hmm. de découvrir talent bi nekk ci nit ah. kooku don la yàlla moo leen ko may dañ leen di ko nangul machallah mooy la buuba ne ma yow est-ce que mës ngaa def télé ma ne ko non ma yow est-ce que xam nga télé mhm. mooy maanaam avant li doon def ci RTS bu njëkk ba mhm. émission wala tout le programme de la télé télé bi day toog wax ko mhm. mu ne ma est-ce que tu l'as déjà fait defal test bi ci noonu ñuy waaj ay un an jàll deux ans ba yàlla dogal tey ma def tele c'est en partie grâce à lui ak ñoom Dori nag ñeneen ak ñeneen waaye comme tey bësam la dama ci taxaw kon di ko ñaanal aussi yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér ndax nekk na goo xamante ne ku oyof la ba pare ku mun a maslaa mm. wax dëgg fa te mun a dékku parce que ñun ay jigéen nañu te déjà rek waa yeewu nañu doo dékku fenn de ma doo di la <laughs> dama lay tooñ noonu rek dama ko <laughs> mais mais dafa baax dafa mën a dékku xam nga ñun jigéen on est des filles mm-hmm. c'est xam jigéen tamit xam ne dañu bare caprice bare affaire rawatina waa yeewu leen mm-hmm. c'est une famille mais mm-hmm. quand même dañu bare ay kii léeg-léeg nga tooñ man mus naa fi tooñ caat ba caat dig ma fi ay duma <laughs> te man ragal laa caat menn la fan la nekk tey mi ngi ñuy seetaan waaye dina ree ba dee xaw ma lu ma ko def di ko tooj muy def ay yëf di kii manaan di ngóobe mu waaxu dem ba ci buuba ne ko dama koy dóor na ma moytu buuba ne ma kaay mi ngi nii nee na dalay duma manaan ko man <laughs> dama daw ma jour boobu dama teel a jël sama saak yendu ma ci télé te loolu yëpp moom la maak mati laa leen man dañ maa lakkal xale yi parce que dama tooy foog ma jàngi karaté bu ma demee tamit man lay jëlal par ne leen yaa xam li nga bëgg yaay Zeyna yaayu Philippe yaayu xale yi ku lim Dioum ah chéri suñu tata guñ koy waxee mhm. waa kër euh, Malé Alassane Sappé Alassane nga xamante ne ñoom itam seen maam moo doon rek liggéey kon nag vraiment Dadi on te souhaite tout le bonheur du monde man nag euh, mhm. li may wax rek mhm. dama dafa nekk nit boo xamante ni dina trompé yu bari ndax image bi ñu buuba di woon ak ni buuba mel du benn man du ma waxantu dem naa toog biroom benn yoon defe naa bu ko ñaareel mooy boobu nga wax léegi duma ci yegg. waa hmm. ñu <laughs> toog mu nekk nit ku dëggu. <laughs> ma Carter Mati Carter da ngeen xam ne Mati Carter la jógee. <laughs> dafa mën a xeex waa kay joola la doom ah, kay kanam ah. boobu suñu diggante xaw naa ko biti loxo. moo ma am lu ma téye mais dama dama ko doonoon car. nee na daa daw tàmpet mais yaa lu mu wax mais yaa xam ne mais yaa taxaw suñu diggante. mais gis nga jour boobu ba ma xalaatu woon ay <laughs> kayit parce que da ngay bind kayit man xam nga mos nañ ma def demande d'explication kooku histoire bu yàgg te man yëguma yëgaanu ma dafa am ko def wuru jaaj ñu dugal ma ci <laughs> mais ma xam ni demande d'explication bi dañ maa tëjoon ca bureau maa ngi nuyu Aïssatou Diop Fall ah. Aïssatou moom li muy wajajaj ji wajajaj yëpp Aïssatou day làkk ay tubaab de haut niveau ba pare tubaab yu garaaw yu dëgër yooyu naan jeune ne saurais vous mm. man daal bindal ma ay phrase bu bindee phrase bu bu rëy rek mu ne je vous appelle à une rek ma toog may jooy ñoom miyaa ñëw nañu marigéey ñëw nañu léegi nag bi ma xalaatee ni bu ma ko waree biti loxo ah, tëj ko xëj arkaatam gëreetam këpp ñu ne dama am après dañuy naan dañuy bindal explication kaay wax la maa fekke la tubaab di bañ man maa fekke lépp man maa fi nekkul di nette mais moo ma tooñ la tooñ daf ma fekk ma sol <laughs> zone ak rouge bi xam nga am na benn as saf-safal bu muy nuru. <laughs> bu yeggale ma ñëw ma wax ma turu saf-safal bi mais ma gis sama bopp. waaw ma ko waxati. waaw kon di wàcc. mais comme Mati depuis la waaw turu a ma ba ci ah, yàgg. Ah, ah. ma solu ñëw mu ne ma tey basante rek nga ma jox. mais man mun naa ci la wala ma ñëw mu ma tey rek safran rek nga sa moral nga tiit. nga ne après li nga def gën a waaye formation Kouthia la série carte xam nga lu neex xam nga lu neex bi ñu ko waree àtte ji ca bureau ba ñu wooñu ñun ñett ñëpp mati pour won ko ni li ma la wax tey laa la ko gën a mën a wax ñu dugg si si bureau bi rek mu daal ni ma dërëm tey safron nga indi te moom loolu def bañ ko indi ci biiram waaw mu ñëw dama tey safron kii bu ko topp dafa mën a tooñ naturellement non xoolal non mati mati en fait mati dafa tëxat voilà dafa saay saay dafa am ak caay caay dafa am ak day tooñ te doo ko ko foogee. waaw ba pare di reetaan di reetaan ci suuf mais vraiment buuba moo doon defar yëpp. waaw dëgg la buuba franchement man man dama yàgg ak ñoom comme may wax rek. dama dama yàgg ak ñoom Buuba Ndour du TFM boobu TFM existé wu woon. ñu mm-hmm. yàgg di liggéey di ànd ak ñoom. franchement ñu nekk nit ñu baax moom ak Njaga Njaga moom. kooku mhm. ni ma ko def moom defuma ko benn doomu aadama bu baax moom waaw kooku kooku kooku kooku man mënuma wax ci moom mais buuba moom buuba moom dama koy kii moom maag moom non ñu nekk nit ñu baax parce que tamit mhm. boo nekkee si kër ngay liggéey mhm. comme man li may wax nee naa leen man aw ma patron te yaakaar naa ne yéen ñi ñëpp amoo leen patron parce que patron yoo voilà ay ay mag patron yoo xam ne kenn bundu xataalu la kenn waxu la lii ngay war a wax ci antenne bi lii ngay war a def ay lettre d'explication duñ la ko laaj su la neexee nga ah yéen léegi de waaw du léegi de. <laughs> boo fi absenté seet. am nga koy bëgg préparé di bëgg a dem noonu damay door buuba non Pape balaa muy dem dafa bind kayit bi signé moo tax ma koy mere bu ma waree jël sama congé non buuba Ndour daf may dawloo dawloo ma non daf ma koy jox de mais pour mu signé ko non problème la moo tax na ma koy tooñ bu ba dundal fekkee say njëriñ njaboot fekkee say sëti sëti sëti sëti sëtaat ci barke Seyduna Muhammad yàlla defaral la jàmm sutura gu baree baree bare kon nag mi yaa mayaat ñu clip rek ñu daal di euh, seetaan benn clip ñëwaat anniversaire papa yi Madolo dara du yomb na tar dadi dadi happy birthday que Ino maa ngi lay nuyu lu bare bare jaw fara jaw xoor besel bu ndaw <laughs> euh, gis nga fecc yi mu def sànq ci euh, vidéo bi toog di ñu seetaan donc maa ngi nuyu sama doom jooju maama ak borom këram euh, di nuyu rek waa Portugal Fatigna Tayibu di dem ba Kolda aussi di nuyu rek sama yaay Asset Balde donc à la famille Balde ñoom ñëpp ñu ngi toog di ñu di ñu di ñu seetaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ma ci profito rek di nuyu Adja Dioma Idrissa kooku nag sama yaayu bopp la waaye kenn du ki nga xamante ne moom moo di suñu bàjjen Aïda Ndiongue Ndiaye mi moom itam ñu ngi koy jox bu baax li nga xamante ne moom moo di wàccuwaayam ak madame Mbacké waaye rawatina nag ki nga xamante ne moom moo di maman Soxna Bali comme ni ma ko waxee kooku nag yaay la joo xamante ne photo bi dama ko gis ba ma ne la euh, ma photo bi ma def ko statut wallaay wallaay dinaa la ko yónnee ndax mbaaxam ak ah, oyofam moom itamit lan moo tax sax mosuma ko mhm. ko gis waaye bi may xamante moom mooy bi maman déggeen wàccee liggéey mhm. ndax boobu mi ma fekk Touba ñu nekk ca kër ga di ko ñaanal papa nekkoon ci lu métti muy maître baabu ba ci man mi waaye ngir dalal sama xel mu lijjanti ba am sama numéro woo ma ne ma man la sa yaay soxna Baali Muntaxa yal na fi yàgg te wér donc dalal ma defal ma xamal ma ne ma li la dal métti na ndax sa wéeru dem na waaye yàllaa fi ne mm, mm, mm, kon nag ku ko jàpp doo jaaxle waaye jàppal ne am nga ay yaay donc ci la ma féetewoo jël ma def ma doom ba tey kon moom itam ci bës bi maa ngi koy massaw bu baax li nga xamante ne moom moo di bésu maman bi waaye di ko jox bu baax wàccuwaayam di ko sant di ko gërëm ndax Tuubaa macha allah lu baax rek la fa jëfe waaye kenn du Anta Kebe moom itam kooku nag yaayu ki nga xamante ne moom moo di Coro Mbaar Njaay la sama rak Adja Anta Kebe mbokku dayu Besel Baas kii ak bébé Baas macha allah non li mu sañse nee naa ko may ma ko ah, rek woon daal xoola man maa ko ñaan Coro li nga sañse ci màggal gi blanc bi moom lem ko ba mu jekk nga indi ko fii wala ko téléspectateur nee na ma koy jox ma gàmmoo ko sama rakk jooju dafa gën ah, coro waxoo ma demee coro njaay <laughs> nag yaayam rek laay comme ni ma ko waxee rek mooy Anta Kebe bu baax a baax mhm. ak kati création euh, alaaji Fàllu mhm. bëgg nag ki nga xamante ni mooy doomu sëñ Fàllu macha allah jeng jeng juuf la sax ndax euh, mhm. doomu surtout Thierno Diouf Lambaye lambaay di nuyu ki nga xamante ni mooy maam jaaraloo foofu laa daloon xiifuma maruma dara manqué wu ma ci kër gi di ñoom ñëpp ñoom jaaya ak mm. mère Ami Gueye ak mère Ami Gueye non gàmmu gàmmu dama lay yóbbu gàmmu bi nii yow da ngay ñëw ah. Touba Touba ku fa ñëw doo fanaan biti ndax dinañ la fat ku ci mel ni Mamour Diouf laa lay bu la xaadim jaxatee marché zeng dalalee ak ma jang ah. néeg ba climatisation bi day tàkk ca kaw ba ci suuf te mi ngi soog a sanc kon nag xaadim jaxate gàmmu gi dañ koy waajal ñu wala ñu dem ci kër tonton Pedro tonton Pedro Diouf waaw moom moom day faral di gàmmu diir fii pàkk làmbaay ku mu fat doo fanaan biti dina la climal dina lekk di nga naan booy dem mu yëkkati alal jox la sa mark ci ci pàkk làmbaay ma nga Tuubaa da nga bëgg ku la dalal dinaa jox téléphone. non mais man du loolu de man dafay am fu may. wala waa TFM tabaxal ñu fa kër rek ñu dem fa di fa waay man non non déedéet ñu naan këru TFM baa ngi ni ci biir Touba man yéen doo leen ma laaj ay dalal man dafa am fu a dal. yow fan nga bëgg a dal wax ñu xool fan la ndax war nañ ko mën a lijjanti aha foofu looloo jar a lijjanti. yow fan nga bëgg a dal man man fi ma bëgg a dal moom damaa bëgg dem rek toog rek jàkkaarloog moom rek. macha allah fan la bëgg la sa xol bu baax dem rek toog toog ci suuf jàkkaarloog moom nii ma koy xool ay waay kan nga bëgg borom akaarimal maxlaa kooku defaral na ma loolu ba pare wallaay macha allah suñu xalif bu tedd bi wallaay muntaha moom loolu rek laa bëgg ci Serigne Muntaha loolu kese laa bëgg daal ñu defaral ma na fi yàgg te wér di ah, nga ko def léegi parce que loolu kese ku ma defaral loolu moom de gis nga boo ñëwoon ci sunu dal gii nga xamante mel ni demaat naa Makka yi deuxième fois télévision moo ñu fa yóbbu waaye gis nga gàcce ngalaama je me rappelle comme un jour président Youssou Ndour waxoon na ko fi nee na il ne fait que euh, fexe de s'entourer des meilleurs mm-hmm. Mm-hmm. waaye ñun je pense ñun ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñun ñooy les employés de la TFM ba ci xale yi ndaw yi ñoom Adja mm-hmm. ah, donc ñoom Khadija ba ci maquilleuse yi ak ñiy gérer service digital bi ñoom je pense que ñun ñëpp ah, on est fier de faire partie de ce groupe <laughs> ndax macha allah ba passé bi ñu sàjjee tubaar fakal la dugg ci oto bi dem ba foofu tijjil nañ ñu bunt yi te xalif général daf ñoo dalal tubaar fakal la ñu jàkkaar man de a seeti man mu ñaanal yóbbu daal ñaanal télé bi nee la boo àndaloon ak ñun fii te fi nga nekk nii bunt bi ndax nee naa la TFM rek buntu la defaral loolu mais laa bëgg nee naa la demal ba ca buntu ba eggal sax Touba wala dem ba ci kër sëñ bi taxaw bul wax sax Bessél baas waaye neel TFM ndax xam naa ne liggéey nañ ko fa may nañ ñu bunt bi te bu ñu demee dinañ la dugal en tout cas daal ci màggal gi bëgg naa dem daal ku ma yóbbu daal mel na ni mel na ni yow da ngay dem mel na ni yóbbuwaat nga ma màkk comme maawo ni ma yóbboo woon ma déglu hmm? dama man daal naa dem rek toog xool ko da ngay dem gis maam kese loolu doomu doomu doomu laa soxla inshallah mi ngi lay dégg TFM la ñuy seetaan parce que xam nga lan moo tax ah? dama dama dama dem ci sang bi sëñ Karim Abdou Karim sëñ Abdou Karim borom bi ma demee mu ñëw di ma nettali di ma wax samay émission horaire bi ma ne ko su ma doon def benn. di nga def fukk. dinaa def fukk. moo tax defaruwaat rek moo ñu war. loolu kese la di toog di def lu baax nag bëgg naa seeti sama maam bi daal jàkkaarloo kanamam bi. bëgg naa ko lool yal na ma ko yàlla defal ku ko mën a def tamit. may leen da ngay dem déggoo ma na la da ngay dem ci sama yaay. auditeurs la solution ñu nekk foofu ca Sacré Cœur en face Sénélec bi wala si wetu jumaa ji boo leen soxlaa ay bijoux yu rafet bijoux yoo xam ne ni doo leen ko gis duñ ko duñ ko publicité vente privée lay doon da ngay dugg ci ruqu ñu génneel la bijoux yi nga xamante ne kenn mësu ko gis nga jënd ko daal di dem noo ko bëggee rek dinga ko amee bijoux kooku di aji Thiam ak Ibrahima ña boo leen demee rek dinañ leen teeru donc euh, jigéen nag dafa war a takku or hmm. moo tax nag ñu ne bijouterie la solution euh, pour am solution jigéen ñëpp mun a takk bees te gis ngeen màggal Touba bi ren li ñu liggéey ci oor ak jigéen li sañse ñëpp ci or euh, si mm-hmm. seen boutique boobu lañ ko jëndee donc loolu nekk na tamit lu am solo mm-hmm. mooy que ne boo yóbboo fa nga war a fësal bu fa fësalee mm-hmm. rek de macha allah di nga am ay client te yaakaar naa ne màggal Touba bi moom li ñu jaay ci ay bijoux sañse yeeg bijoux yi lépp ci bijouterie la solution foofu la jógee euh, kon nag euh, Adji Thiam mi nga xamante ne boo demee dalay accueillir dalal la yaru ànd la ñuy traité équipe voilà une belle équipe boo xamante ne dynamique xam mm-hmm. li nga xamante moom la ñuy jaay proposer ko client yi ci nu mu waree donc loolu bokk na ci professionnalisme mm-hmm. parce que nit boo ko dalalulee bu baax rek du la ñeme mm-hmm. wala bu demaatee bu demee du ñëwaat donc déjà mooy cette équipe professionnelle et jeune et dynamique ba pare mu créer emploi rawatina nag di proposer loo xamante ne dafa baax te gën macha allah kon nag euh, ñu ngi leen di digal ngeen dem fa voilà li ci neex tamit Mado mooy que ne dalay jaay or bu garanti wallaay ba pare même temps tey boo bëggoon ba bëgg ko changer da nga yóbbuwaat mu changer bu fekkee da nga gis yow sa modèle ba Diobé na nga fa dem waa kay maman Diobé Diop na nga dem jëndi ngalam ca <laughs> ah, ci Adji Thiam <laughs> Adji Thiam mu ngi noonu la solution na ku nekk si ligne bi dërëm waxal ma ko allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam dërëm maa ngi nii rek maa ngi leen di nuyu bu baax ñoom lay fay foo noo tudd ak fooy woote maa ngi tudd Fatou maa ngi wootee Mbour ah Fatou waa Mbour ñu ngi fi mbaa jàmm ngeen yendoo non non man la doom bàyyiwu Mado Jaw ah Jaw Farama Jaw xool yoro Jaw booli mbooj Mado damaa pour jot dama yàgg di woote TFM pour rek jot la wallaay ma chérie tey sant bi ñu yàlla boole ak cofeel gi ma am ci yow macha allah jërëjëf bëgg naa la lool jaw fara bëgg nga ku baax <laughs> na yàlla bëgg nga ku baax bu set la am wallaay jaw yow gaaw a jooy macha allah yaa ma gën foofu jaw amiin yaa rabbi merci ah, ma chérie yéen ñëpp maa ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay jërëjëf di wax ni kontaan naa nag tey ci ni wax. kon xam nga ni nga kontaanee na ba mënoo wax loolu laa yëkkatee vingt cinq euh, mhm. quinze mille francs. Ah. Euh, jox la ko nga daal di dem jënd njarum soow defaral ma ci beñe dugub ak ah, café. ah loolu neex na ma man am numéro am tamit dina ma gën a dama ko bëgg lool sama xol. waa d'accord dina la jox 552 bi. waaw Mia dina la jox 552 bi bul. kii dégg nga 79 miin na Ndakaaru. doomu baay jël ko yaay borom. 552 39 78. waxaat ko xaaral mu jël ko waxaat ko Mado 552. 77 552 39 78. doomu baay 39. 78. 78. waaw da nga may yónnee message rek bu ma paree woo la incha allah waaw ñeneen ñi nag bu leen profité nag jël ko nag dégg nga. merci beaucoup bisous <laughs> merci beaucoup jërëjëf euh, kontaan ci moom lu bëree bëree mm-hmm. baax rek am solo macha allah baax rek am solo. Mm-hmm. te li muy wax ci jaw fara du luñ koy waxal. duñ ko jeté ay fleur mm-hmm. ndax la ñuy fajee suñu soxla ñoo koy def nii waaye kenn gënu leen Mhm. yow mii xol bu rafet nga yor moom mii xol bu rafet la yor ak yow mi benn pànk ëbbalun càccoo am ngi waaye teewul xol bi rafet na jeex na xam nga pànk ëbbi leen càccoo aussi kooku ci nit lay ne rek xam nga waaye xol ba la ca biir mooy baax mooy comme yow te xam nga li ñu naan la ca biir xol mm-hmm. mooy feeñ ci kanam tubaar fakal la lu ñu wax ñetti deemu penda naari sànq da nga defaru tubaar fakal la ma xoola ne la ah macha allah nañu wax rek sama catu laame nag sama xaala ma lu da da ngay sax sa malfa bu xotteeku macha allah mu xoola uula la oh man tey malfa xam nga man xoola besel gis nga du ma xool melokaan kooku mën ne la man xam nga dama mel ni ma mel maman gis ma ma mel ni ma mel soppee ma noonu gis nga bés boo xamante ne dafa toog géew ak sama waa waa kër mu wax leen mu ne leen ni dama leen di biral ndax mu ngi ci këru dëgg man maa ngi ci këru fen mhm. nañ ma baal baat bi mhm. waaye dafa ne xale bi toog birndeel ko sama ñi fa nekkoon yëpp ci aj euh, tata Fatou Gueye yàlla na ko yàlla xare ajjana moom itam mhm. mu ne leen seen doom bii ngeen gis bu leen yaakaar ni man moo ma ñooxu li ñuy bare yëpp tubaar fakal la man maa tànn xale bi jël ko ndax jikkoom moom a saf. en tout cas ku baax kon nag léeg-léeg dinañ ne damay toppandoo wala leneen du toppandoo. li lu woon ci man la sant yàlla léegi na gisale mag moom boole mag te ndokk sax nee naa kuy roy dangay ngay roy lu baax mais damay dellu siwaat ci liñ doon wax. Mhm. Bessél ñun dañoo rafet. <laughs> xam ngeen loolu 2020 lan la président Youssou Ndour wax. Euh, c'est ça waaye wa lan la ko waxee woon. ku ci nekk nay wax baax baaxam. waaw dëgg la de ah yow tam. Eh, daa dëgg dëgg. mado. Ah, boobu moolu kanam. waaw ah, tubaar fa kàll mi ngi nii. mi yaa wane samay xef. Ah. boobu xeetu bakkan tubaar fa kàll. man nag bëgg naa ñu indil warugar mado nag un milliard. ah tubaar fa kàll man nag naa sama bopp bëgg naa sama bopp. ba pare mi yaa bu ma ci paree da ñëw nga wax sa taar. kese caméra bi waxal waxal. Eh, dañ koy accepté non ñëwal man man man xam nga man tooy man sa dent blanche dërëm tubaar fakal sama catu làmmiñ waruma ko wax waxal sa taar ma gën a kii moo tax ma naan ñetti doomu penda naari ñun on est belle on est jolie on est raffiné on a de la classe on est élégant mais c'est à cause de toi aussi que ñu am classe parce que xam nga moom franchement man ñëpp wax nañ ko xam nga non parce que nit bu la defaralee lu baax danga koy wax sincèrement man ku ma xam <laughs> musuma nangu sama kanam nit maquillé mhm. ko maquillage moom moom rek moo ngi ni toog te xam nga ko mm-hmm. loolu duma ko nëbb mm-hmm. comprendre nga après sax laa commencé di accepter mm-hmm. bi may def publicité ak aji aji tamit aji cam moom ma njëkk a takkal jaaro nopp ku ma xam doo xam nga du takk jaaro nopp mais madu en fait xam nga xam nga nit dina la defaral sa kanam des fois mu rëddal la crayon bi du baax nga pare nga xool ko nga xam ne kii ni mu defee lii baaxul mhm. xam nga mais Mado dala koy defaral si comme si que moom boppam la koy defaral non Mado mais am na ñoo xam ne xamuñu loolu ah, kon dañu bëgg lu baax voilà xamuñu xamuñu war a ñëw jàkkaarloo euh, seetu bi su ma génnee ñëpp naan ma bi ma ñëwee si télé bi lan la ma ñoom madame Ndiaye wax mhm. mardi dootoo fi génnati waa kay dootoo fi génnati te madoo doo wu la donc kon ça veut dire que li muy maquillé dafa rafet mm-hmm. donc loolu ñàkk ki ñaan moo tax nga koy def à de faire quelque boo xamante ne dafa ñaaw ah, yàlla na yéex tey bu ma ah. fi nekkul woon man xam naa ne di ngeen moo xam ay waay ma doo ak a baaxoon bëgg lu baax ay waay ma doo ak a bëggoon lu baax loolu lan moo ko gën a neex waaye ma dafa bonoon ma doo dafa fiipoo woon ma doo dafa ndax tubaarkàlla macha allah nañu wax rek macha allah ñi mm-hmm. ngay wax ci Mado moo ne ci Mado. loolu la moo ne ci yow. ndax yow kenn du yow. ñàkk ki ñaan nga. <laughs> baax nga rafet nga waaw te sa xol bi nga taxawee ñaap yëngatu ba seen <laughs> nii nga defoon dama ko fàtte. fàtte xaju fi bi nga ko defee nga xaw a def nii def nii defaat nii miyaa su ma la jël la ca kaw ba ca suuf. ca ëllëg sa dégg nouvelle te ëllëg sa ëllëg si te dañu dégg nouvelle te danga ah! ñëw nëbbu woon. waaw waaw <laughs> ay waay comme kenn moo taxit li ma def tamit kii la xam naa ni solo ma xam besel besel damay dama bëgg nga dégg moo tax man ni damay jógaale nii rek <laughs> ah, waaw waaw li yaa xam nga nga après ma xaw a wëlbati woon nii nii mais grand boobu bi rafet na après ma def nii bu ma jot waaw <laughs> bu ah. ma jotoon waaw ñu xoolaale ma tamit macha allah ndax ñu tamit def laa bëgg ngeen def ma ñëw leen def ko zoom ko noonu nan la defoon keroog def ko ñu dégg nouvelle Euh, dimanche jàmm ak salaam ñu ngi la koy ñaanal nag. amiin yaa rabbi wallaay te dinga am ci barke Seydina Muhammad waaw ku la attan attan sa njaboot. amiin parce que nga am nit te du gën ci yow. te du la attan du attan sa njaboot. ñu ñaan yàlla ku la attan attan sa njaboot ndax ñëpp sa njaboot lañ bokk. ndax suñu dem fee yóbbu périg bu gëla ngaw se nga defar ba mu baax. maanaam wax nii de bilaay de périg baa ngi nii de périg bi de moo ko defar. waaw liisal ko ba mu liis waaw te mu ngi noonu nag ah. sama waaji sama waaji ndama ngi ci gàcce ngi ci waaye Pape Seve kenn du yow envoyé banque moom di ñu seetaan depuis Paris kooku di Khady Konaté maa ngi koy nuyu lu bare bare ak euh, Ndeye Fatou depuis Italie ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. Euh, li ñu amoon nag ci waxtu. Euh, jeex defal naag ma nuyu Thian Khoule sama waa ji. moo tax ma ne la demal ñaaña jaw ay ca demal. après nga tànguwaale foofu rek ëpp naa def. déet. waaw rek ñu xaabaabal tey amul arrêté. ah déedéet daal ah, ah. xewle. waaw mais nag tamit nag waa demal rek. te xam nga moom daawul woon tooñ. wallaay ndeysaan <laughs> wallaay dara dafa neex te lu neex du jé dañ koy dog dem ba beneen yoon. Mhm. di wax ne nag ñi ngi bëggee Sénégal gépp jéegi saw fàttewu ma kenn ku ma tudd ku ma tudd ku lim doo matale. te tubaarkàlla macha allah ñëpp a ngi sama xol rawatina Touba Mbacke ga ma jógee ñoom Ibrahima Ndaw ak xale yi nekk ci boutique ba ak ñi nga xamante ne ñoo nekk Touba gépp ñi ma fa gis ak ñi ma gisul yëpp maa ngi leen di bëggee di leen ñaanal ñaan leen fa ñaan yàlla na ko yàlla ful set ko ci Sénégal muy xéewal ak tawfeex yàlla musal ñi ci mbas mi te jëleel ñu ko fi parce que mbas mi tamit sonal nanu ñi nga xam dañ daan dem guddi Dakar na door pa mbas demal ndax nu delluwaat suñuy activité di ñaanal Sénégal di wax bas waaw danoon na mu cëpp cëppi mm. fecc def ñëw won sénégalais ñu bég mm. ndax la macha allah dañ daan dem guddi gi ànd ak nit ñi muy neex ñu ñëw teg ko Dakar Ndor pa loolu yëpp amatul ndax mbas mi comme mbas mi daal yàlla nañu ko fa yàlla jëlee ñun ñëpp ñu ngi koy ñaan màggal gi ñu jóge effacé lépp ñëwaat nekkaat ci suñuy activité ñëpp di bég di wax ni tey nag bu ma gisee ku ma habillé mooy Babacar Miroir Couture mu defati ba mu baax sama waa ji ne ma demal bégal Sénégal mm-hmm. Pape Seven Ndour mu defati ba mu baax make up bi kenn du ma ko laaj mhm. ndax Mado Jaw fara Mado xoor a ngi nii toog en tout cas day leen dem Galabaal Baay Estal Baay Mado mhm. ca Liberté 6 Galabaal Galabaal naa la tudd bu baal ma ko bu ma ko baal waxal nu mu tudd Galabaal Estal Baay Mado <laughs> ma joxaale ma uppukaay bi tam. waaw ñu di ko fàttale ko suñu yaay ji. di wax ni danaan garnir bay garnir uppukaayam. moo tax tey rek ñu indi ko ndax tubaarkàlla fi ñu ne daa sedd guy ndax climat fi ne waaye nag du tere rek da daan def ba def ëppukaayam moo tax tey ñu indaale ëppukaay bi di ko ñaanal fa mu nekk moom it suuf oyof ci kam yàlla leeral baam bàmmeelam mhm. jiggal ko ay bàkkaaram te xam ne ba tey jugul ci ñun jërëjëf dërëm kontaan nañ ci yow mardi incha allah ah Mado waaw joxaale ma ëppukaay di indi non non non maa la ko joxoon delloo déedéet mara ma rek waaw delloo ma rek ci télé bi ko joxe woon <laughs> <laughs> waa kay Mado ma bàyyi la nga daal di. tàggat bi laa la koy laa koy jëlaatee. pourtant nii la ko doon defee. wallaay yaay mhm. wallaay yaay qu'elle repose en paix yal na ko yàlla xare àjjana. amiin donc tata Khady Niang bu Serigne Babacar Sy moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax baax ñu ngi jot li nga xamante ne moom moo di bataaxalam en tout cas di remercier waat yëpp et di dénkaat nit ñi comme ni mu ko waxoon mis à part la beauté la grâce l'élégance macha allah qu'elle incarnait c'était une personne boo xamante ne elle était déterminée bëgg liggéey fonk liggéey. Mm-hmm. kon nag ñun ñi nekk yëpp télévision Futur Média je pense que war nañ ko roy bañ a di gën a fonk li nga xamante ne moom moo di suñu liggéey ndax dafa doon respecté heure baña a lekku heure ci émission jàmbur mm-hmm. tellement que dafa doon bañ a tooñ mm-hmm. kon nag yàlla nañu yàlla may kattan boobu vraiment télévision Futur Média yokku ba ñëpp yëg ko ñu baax ñi fi nekkoon tamit yàlla jàppale leen ñu continuer ci baax ñi fi nekkoon ñoom itam yàlla xare leen àjjana parce que ce n'est pas kenn peut-être que tey bësam la waaye ñi ngi masawu euh, képp koo xamante ne sa njaboot dëddu na la te nekkatoo fi woon donc ñi ngi leen di remercier waaye maa ngi remercier nag Kati Samba sama rakk jooju nga xamante ne dafa gën yóbbu woon ma kër Xaadim Jaxate ca Mbuur euh, ca ca fële nu mu tuddati Touba macha allah maa ngi koy remercier ah donc nag ak ki nga xamante ne rek moom moo di daal euh, ñi nekk sama biir xool yëpp ku lim daal da leen di remercier mooy kati création rek jéeri ngoone Malobe Samba moom dafa raffiné ci lii rek lay dox donc maa ngi koy remercier bu baax a baax ah. merci beaucoup donc Mado merci beaucoup téléspectateurs yi ñu doon seetaan waaye jaajëfal nag suñuy partenaire muy rek bijouterie la solution ñoom ñoo ñuy gunge saa su ne rek si suñu émission seetu bi bijoux yi ñu takk yëpp ak bijoux yi nga xamante ne gis ngeen ko ñu ngi nekk foofu ca Sacré-Cœur en face euh, Sénélec bi ci jumaa ji euh, boo leen demee rek lépp loo leen soxla ci boo xam kenn mësu ko gis dañuy def vente privée dugal la si ak accueillir la recevoir la dalal sa xel euh, servir la tamit ni nga xamante ne noonu moo waree génne la bijou yi nga tànn boo jëndee ba pare tamit ñu accompagner la ba fi nga xamante ne foofu ngay ñibbi kon yaakaar naa ne loolu dara daaxu ko nga dem tamit ci vitrine bi daal di koy xool donc di jaajëfal kooku di Ibrahima Niang ak euh, kooku di Adji kontaan ci ñoom lu bëree bëri waaye kontaan nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo tax ñun ñuy feeñ ngeen ñuy gis muy ñu nekk rek euh, ci technique bi Mia leen ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal lu bare bare jaajëfal nag képp koo xam ne tamit yaa ngi si kër gi euh, di leen jox ah? mhm. ma ne maam Anta depuis Ndar mu ngi noonu voilà donc di nuyu ñëpp bu ñu limee rek euh, dañuy daal di juum jaajëfal nag jaw farama jaw xoor borom xolu oor ak jamono bi euh, di ko ñaanal gudd fan wér ak wérle yàlla may ko nag ñu indil ko ay warugar yoo xam ne ni daal milliards lay doon ay milliards ah. Ah, donc yal na ko yàlla ah surtout surtout surtout mbaa sumbulu Mbacco Mbacco Ndiaye voilà ñoom ñëpp yal na leen jik waaw amiin amiin amiin amiin yaa rabbi amiin léegi après keneen ki mu doon man incha allah bah bien sûr ah oui <laughs> kon merci bu ñu fi defee lu ëpp mbaa ñu wax lu ëpp ñu ngi jéggalu te ngeen xam rek doomu aadama moom moo motul ngeen jéggal ñu lu bare bare kon na rendez-vous yi incha allah vendredi bu neexee suñu borom mais sinon maak sama team mardi <laughs>